mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen euh, gërëm bu baax di leen euh, sant di jégalu ñëpp di baalu ak ñëpp dellusiwaat euh, ci ndimbalu suñu borom ak kattanam ci émission trent minutes chrono bi leen di defal alxames junne ci solution info TV tey ñu dellusiwaat fa seen waxtaan ci actualité bi ginnaaw ban gërëmee Ablaye Diallo abdu Top ak Mamadou juuf ñi nekk ci régie bi actualité bi li ci gën a fes mooy convocation yi dinañ ci wax bu Bougane Cheikh Yérim Kader ñeneen ak ñeneen ñun dinañ ci wax suñu xalaat ak ni ñu ko gisee surtout bu Bougane beneen bi ci topp dinañ wax ci Sonko ak élection législative yiñ jëm ak Macky Sall mi ne day dellu si nekk ab tëddalis dinañ ci dellu ak gis-gis yiñ ci am ci ni le plan hors Sonko damay fàttaliku en 2004 bi ñuy jàpp Idrissa Seck wala bokk bi ñuy door mbiri sàncewu Thiès yi journal Le Quotidien Madiambal Diagne bindoon le plan hors boobu dafa yamoo woon ak inondation ñu ne plan hors ça m'a nag pour que ma wax plan hors Sonko pourquoi ma wax ci kanam dinaa ci dikk parce que man dama gëm ni li xew yépp ci réew mi jamono yi plan la boo xam ne rek pour kat Sonko 2029 du mën a dellu si parce que ñi fi ne ñëpp seen intérêt la sàmm te gis nañ ni bu Sonko continuer bari na fi tey jii ñoo xam ne ñi ngi fi gëm naa ni seen laaf dina tooy waaye ñu njëkkee ci Bougane Gueye dama bind ci tiitre bi Bougane sans défense défense nag buñ koy wax ci wàllu yoon sa avocat moo tax ñuy wax lu tax ma wax ko ginnaaw ba nu wooyee Bougane Gueye Dany ak li tax ñu woo ko ak charge yi ñu teg ci kawam ma am lu ma seetlu ci mbiri Bougane Gueye te loolu gëm naa ni Bougane Gueye ak ñi koy conseillé dinañ ci bàyyi xel looloo tax tey bi ma déggee sax yeneen avocat dugg ci dossier Bougane ma ni peut-être mën na tane waaye démb dama déglu maître El Hadj ak El Hadj Amadou Sall avocat bi du Bougane duggee ba génn ma dégg seen kàddu mais bi mu ko déggee nin doon layalee Bougane dafa des parce que le cas de moom waxuma ko parce que El Hadj Diouf moom ci dossier Lat Diop ni mu ci waxee rek ngay xam ne El Hadj Diouf des fois miy défendre sax te comprendre lu xew parce que bu demee bay défendre Lat Diop te xamul lan mooy one x bet ak première bet maanaam mu koy jaawle xamul quoi. naan benn la nga xam ne kon El Hadj Diouf dugg na ci dossier boo xam ne bi mu ci dugg sax est-ce que maîtriser na dossier bi loolu dama gëm ni El Hadj Diouf moom marché moo ibbeeku ci moom rek comme avocat la ku mënti doon les avocats dalay lay défendre même boo rey nit parce que marché la boo xam ne surtout les politiciens am na xaalis te da lay fay pour man ñëw défendre Bougane loolu seen liggéey la te lu war la. parce que dañ naan droit à la défense mais nan ngay défendre nit ki ma njëkkee ci maître El jouf Diouf maître jouf ñu bari dañ ko jàppee ku muusul mais ku muusu la maître El Hadj Diouf avant sonk di falu amul lu mu doon yàq Sonko ci àddina maanaam wax yi gën a ñaaw yi Sonko daan dégg ci kàddu yu maître El Hadj Diouf la doon jógee ci mbiri Adji Sarr mais boobu sonk la homme politique opposant lu la neex mën nga ko wax nga génn ci même bu porté plainte sax plainte boobu sax kenn du ko saytu dañ ko fay bàyyi rek part que Sonko nee na dugaloon na huit plainte yàlla dogal Sonko falu ak Jomaay El Hadj Diouf dem ci benn am na interview bu mu doon def ñu laaj ko na ko El Hadj mbiri Adji mu ne duma ci waxati dégg ngeen maître El Hadj ba Sonko faloog tey jii kàddu yi dëgër wala yu ñaaw yu mu wax Sonko El Hadj Diouf kon El Hadj Diouf mën na def la part des choses mooy Sonko opposant ak Sonko premier ministre wala Diomaye président El Hadj Diouf seq na fekk Diomaye lu ne ci plateau may mu nanduur fay taxul mu wax Diomaye dara pourtant jomaay yàq nag fa loo xam ne li muy gën a li koy gën a métti ci àddina jour boobu jomaay fàttali na ko mooy la xewoon ca Paris duma ma ci dellu si waat mais bi jomaay faloog léegi est-ce que dégg nga El Hadj Diouf yëkkati kaddu yi ñagas yoo xam ne yoon da koy tere bu amee te yëguma ko mu jëmee ko ci jomaay wala Sonko kon tey ji maître El Hadj Moustapha Diouf te El Hadj Diouf mi noonu mu defee la part des choses est-ce que mënu woon conseil Bougane mu def la part de choses parce que li Bougane di wax di def xam na Bougane ëppul fut El Hadj Diouf ëpp ko xel dax ko jàng mais la lu tax El Hadj xàmmee président premier ministre ak opposant ba tax la mu doon wax waxatu ko kon El Hadj Diouf bu weeteeg Bougane te bëgg ko da ko waroon wax ni kat na woon demeetul nii ñii kat danoo falu parce que nag boo nee président Ousmane ñàpp première ministre nga teg ci fen fen fen fen ka nu kàddu gën a ñaawee la waykat ba doon wax naan danuy xool nu ma gën a ñaawee rek ñu nettali ko ko noonu wala ñu waxee ko noonu wala fi nag dan kon ne duma ko topp fa ngeen jëm moo soriwul mën nga opposé wu wax li ngay wax def li ngay def te am na foo xam doo fa egg parce que bu nee danoo teg ay loi ak ay réglement bañ ñu dem ci anarchie moo tax bañ nit di def lu ko neex wala muy wax lu ko neex damay faral di wax naan def li la neex wax li la neex am li la neex amul fenn mën nga def lu la neex wax li la neex waaye am li la neex moom mënoo ko garantil sa bopp noonu El Hadj Diouf xàmmee président ak premier bala mu doon wax waxatu ko Bougane loolu la waroon a xàmmee xam na Sonko moo woon ak Jomaay moo woon dun mii parce que maintenant ils sont protégés est-ce que la Adji Sarr doon wax ñemeeti na toog di ko wax est-ce que la ministre des sports ba Diattara doon wax ci Sonko kàddu yi ñaaw loo xam ne ñemeetuma ci jaar ñemeetu na ko wax Lat Diop la mu doon wax sonk tey jii boo nekkoon waxaat ko du ko wax des fois nag nga gis nit di far nit ci dara far nit ci dara kooku di far ki bu li waa ji def ba mu koy far moom boo nekkoon def ko du ko def kon àndu ci man ànduma ci ñu tëj nit wala ñu woon nit parce que même bu dul jëmi Bougane la mu jiite di dee médias suñu confrère ñoo fa ne am na ñu ci xam am na ñoo xam ne man bi ma fi amee dëj jël nañ seen téléphone woo ma am na ci ñoo xam ne ñoo bokk man ak ñoom fa ñu formé samay nawle lan buñ sañoon moo sañoon dara du leen naqadi di seen kaw parce que lu dal seen patron dal seen kaw kon ki yéenewu leen ko mais nit ki boo ko bëggee dimbali yenn saa yi da wax dëgg na ko am na ci foo xam ne nit mënu fa egg nit ku ne. day am lu muy desal ngir bu ëllëgee ñu mën laa setal loolu la Youssou wax du looy xam wax ko rek du looy gëm wax ko parce que dañuy jaawale gëm sa bopp xam sa bopp ak yëg sa bopp loolu dañ koy jaawale te nag bokkul gëm sa bopp xam sa bopp ab yëg sa bopp dafa wute kon loolu jar a bàyyi xel la léegi ma ñëw ci beneen avocat bi di maître El Hadji Amadou Sall nekkoon na fi ministre de la justice ku xam yoon la kun xamoon caaroy la dans la banlieue Maître Sall démb dama dégg mu wax benn baat mu ngi défendre Bougane de mais boo koy déglu wax ji ba wax ji daanu xam ne Sénégal dañuy déglu wax mais wax ju du daanu Maître El amul Amadou dafa ne dugg nañu génn waaye kenn warul saaga ab président kenn waru ko sàllalu la Sonko doon def la Sonko doon lii la Sonko doon lii la Sonko doon lii maître El Hadj Amadou fàtte ni bi Macky Sall yi doog a falu bokkoon na ki ñi gën a lëjal Macky sàll ci àddina émission bu ne toog na fa Macky bokkat la Macky lii la Macky lii la maanaam bu doon wax ci Macky sàll du am retenu nan la ko Macky sàll def naka coppet dugal ci kaso bi nga xam na maître El Hadj Amadou Sall bokk na ci ñin njëkk a tëj ci nguuru Macky Sall lan moo ko indi parce que da daan wax lu waxuwul parce que loolu tax na maître El Hadj Amadou Sall bi mu génnee mu xàmmee lan mooy institution lan mooy président boo déggee mu ni la président kenn du ko xas kenn du ko lii maanaam maître El Hadj Amadou Sall mi ngi layal Bougane mais mel na ku àndul ak Bougane parce que li ñuy toppee Bougane loolu la naan nit waru ko def mais di ko lii ak Sonko mais li ñuy toppee Bougane naan waru ko def sàllalu wala weddi ab institution wala dara wala lii maître El Hadji Amadou Sall dégluwaat leen ay waxam te moom nekkoon na victime ci lii ñàkk wormal am njiit ba li ko ci fekk fekku bi mu génnee nan la def dem fekki Macky Macky moom mu doon xas ma Macky tëj ko bi mu génnee dafa fekk Macky ka taxaw ni xas Macky mu bàyyi kooku di Karim Wade est-ce que déggati ngeen maître Sall mu waxati kàddu gu ëpp ci réew mi kon gëm naa ni moom mi assurer la defence de Bougane mook Diouf maître El Hadj Diouf Bougane xam naa ni bu leen dégloo seen vidéo yi dina la woo ba mu ñëw loolu rek tey bi ma déggee tribunal yeneen avocat sama xel am na ci lu mu dem parce que démb dégluwaat leen maître Sall li may wax nii ak maître El Hadj pour man défense bi des na loolu nag moo war xam ni gars yi fii da danoo rëy nding te amuñu ngooñ danoo rëy làng te amuñu ay sees da lay dugal nga foog ni yow lañu àndal fekk da lay sànq fekk da lay sànq parce que bu dee ni inspection générale des finances nekk ay agents assermentés yi nekk ci ministre des affaires des des finances génne ab rapport ba léegi dégguma de ay avocats. jom Bougane ñooy wax lool boo gisee ma tuddee titre Bougane sans défense ay avocat Bougane ñooy wax parce que man les PV la depuis mbiri El Aline Badara Ndaw ci PV yi génn ñu koy di ci presse bi ci laa ci tey parce que des fois on raconte des histoires quoi Maître mu ne Bougane Maître Sall Ahmed El Hadj je ne sais plus mais daal ci défense bi ñoo ko wax ñu ne Bougane li ko wax di waxi politique moom lañu ñu dindi maanaam li Sonko di waxi politique moom la ñu dindi parce li li ko wax da Bougane dafa na wérul waaye Bougane bi mu ko waxee ba noppi dafa indi ay preuves rapport Cour de comptes bu génneegul publier ko Bougane fan la ko war a jële xam na loolu du loolu dugal maanaam. loolu <laughs> mais yaa ngi indil problème bu gaan bu dee noonu la demee rapport cour des comptes Modou bu dee damaa jum nga <laughs> nga gindi ma yaay est-ce que rapport cour des comptes ba mu publié gul cour des comptes rek moo ko sañ génnee génne wala mu jox ko ay kilifa am ñu génnee ko cour des comptes boobu ñu ne rapport bi génn ñu ne ca la ca la ko jëlee moo tax chiffres yi am différence lu Sonko wax du dëgg te Sonko li mu wax du waxam. ay agent assermenté di inspection générale des finance doo dox ci mbedd mi ba dégg ab inspecteur général des finances ci mbedd mi parce que ils sont tellement discrets ji nga finance ña fay liggéey moo tax ministre Cheikh Diba biñ ko laajee sax soriwu ci parce que finance li naan xaalis bëggul coow finance doo wax lu bari maanaam boo yoree finance doo wax lu bari xam ne son boo boobu ngi li muy bari bari wax doo dégg muy wax waxi xaalis <laughs> <laughs> parce que xaalis moo bëggul coow pour wax la ni rek agent ya fa ne di def boobu la liggéey da leen di nëbb parce que li ñuy def àndul ak daraay politique mi ngi mel ne waa cour des comptes yi xam na ay avocat leen cour des comptes c'est une institution ni nuy protéger la présidence de la république di ko protéger le procureur entre autres di ko protéger le président conseil constitutionnel da nga koy protéger les juges wala bokk ñanu tabb ca Cour des comptes ñu ne ñooñ def na rapport génneegul ñu ne preuve yi mu wax Cour des comptes mais loolu est-ce que mënuñu la topp détention sax illégale jëm ci papier administratif waxuma ni loolu la nga ko toppee mais dama diglu avocat yi dégluwaat leen même bu doon loolu am na ci audition bi ñoom même buñ génnee est-ce que waroon nañ ko wax peut-être ñoo ma gën a xam seen métier ñoo ma gën a xam ni ñuy doxalee parce que El Hadj Diouf du avocat bu ndaw na ko noonu El Hadj Amadou Sall macha allah am nañ respect bu rëy ci ñoom. ñu ne 605 milliards yu kenn gisul sonk bi mu koy wax du du du tëbul rek wax ko te loo xam da nga ko leboon ci turu Sénégal gis ñu xaalis deux mille et quelques milliards yoo xam ne dañ ne dañ ko dugal secret défense mu ne fii la réew mi toll bi ko Sonko di wax li lay wan ni déraille politique nekku ci da ngay xool ñi wër Sonko Abdourahmane Sarr ministre de l'économie ñu ne Mohamed Al Amin secretaire maanaam général du gouvernement je suis bu mu juumul nekk un technicien ku xam finance ñu ne keneen ki y avait quelqu'un le ministre de la justice ma nga foon booy mais il a parlé avec beaucoup de retenue ñu ne kan moo leen rax ñu ne Abdourahmane Diouf parce que le ministre des finances dafa absenté parce que dafa demoon aux États-Unis xool li Bougane wax ne ministre des finances boo gisee ñëwul parce que chef yi ñu joxe ceci ou cela alors que jamono ji Bougane di wax man maa ngi seetaan le journal de vingt heures di seetaan Bougane ci internet bi à la RTS le journal de 20 ma gis fa Cheikh Diba ci délégation président bi ak Mimi Touré ak ministre des affaires étrangères ñu ànd dem ca Nations Unies xibaar yooyu buggaan joxe woon yenn genre xibaar la kon li gouvernement bi doon def lu jaadu la lu normal la boo déggee ma jambal sax nee na yéex nañ ko def foofu ànd naaj ak ma jambal mais teewul def nañ ko parce que lu nu war a def la parce que loolu dañ ko séq ak seeni nawle yu ñu séq ak mooy ci wàllu koom-koom buñ ko xasee ba indi ñu tudd ci Amadou Ba tudd ci Mouhamadou Moustapha Ba tudd ci Abdoulaye Daouda Diallo tudd ci le président de la République Macky Sall ñett ñi finance lañ jiite woon jibaay réew mi nekk ci seen loxo mais ñooñu tontooguñu balaa sonk di toog di wax Diomaye Bougane ne buñ paree woon maanaam buñ paree man ma tàmbali tontu leen léegi Sonko ak gouvernement bu na woon léegi duñ def conférence bi léegi Bougane nu muy def Bougane bu doon di dafa préparer ay chiffres am fu mu leen jëlee est-ce que chiffre yooyu c'est authentique léegi même bu dee Cour de comptes la ko jëlee est-ce que war ñu ko laaj woo ko na ko chiffre yi foo ko jëlee yooyu yëpp ay question la yu ñuy pose looloo tax président Bougane Gueye Dany pour man ñu nañ ko gën dimbali parce que li ay failles la yu ma détecté yoo xam ne ci gëstu ak njàngat da ngay xam ne am na lu des parce que ça ne doit pas se comme ça parce que des agents assermentés de l'État parce que fi Sonko toogoon mais gisoo fa ku bokk Pastef bu dul jëmmi Sonko fi mu toogoon di def conférence pour walla ni rek fexe nañ sax ba éviter image politique bi mu mën a joxe ils étaient tellement sérieux man doon naa d'accord les techniciens les économistes les financier entre autres ñëw dindi ko teg fa dara parce que tey Cour des comptes du caaxaan institution la kon di bàyyi xel ci yu mel noonu dafa am solo même analyse bu mel noonu lay am ci Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim mbir mi dafa na cëppalan lay rek mu dem toog ci Maymuna bi mu ñëwee toog wax ay waxam mais nit bu waxee lu mel noonu te li jiitu loolu nee na fi laay toog ci réew mi wax ba xotteeku duma leen may dara mu jaral ko lu ne Cheikh Yérim ni mu bëggee àddina bu demee ba jàpp ni dafa war a toog ci réew mi di wax ba xotteeku mais wax aussi loo xam ndax wala fi neen def loo xam wax loo xam boo tëddee nalaw nga gis ay journaliste man ba léegi du ma dikk ci PV ak lu leen toppee ah damay bàyyi procureur dawal ba ci kanam ak li mu wax ci mbir mbiri Jérôme Bandiaky ak li mu ci xam mais loolu jar nañu woo la laaj la wala pourquoi duñ ko léegi les journalistes jóg ne non day défendre Cheikh Yérim Seck te man dama gëm ni Cheikh Yérim Seck est-ce que journalisme lay def. yaa yérim pour man day politique bu politiqueul lan lay def parce que dafa ne day jàkkaarloo nguur gi ki ne day jàkkaarloo nguur gi est-ce que le travail du journaliste mooy damay ñëw jàkkaarloo ñi léegi nag géew politique bi moo mel ni boo ñëwee di politique da lay traité politiquement loolu de journaliste yi jóg ne dañuy jàppale seex Yérim Seck sañ nañ ko jàppale mais est-ce que li Cheikh Yérim Seck doon def journalisme la walla politique Serigne Saliou jàpp nañ ko fi pour les mêmes causes Pape Alé jàpp nañ ko fi keneen ak keneen loolu il faut que ñu bàyyi ci xel parce que mënuñu rek ku ne jóg parce que bu ndee ba egg ci nag def li la neex wax li la neex te dara du la ci fekk mais day dugg ci anarchie loolu même ñun ñi saa du nekkati en sécurité nit sañ na jug rek na moo du Diouf lii Ablaye lii wala lii parce que bu ñu tegee ay loi ay règlement c'est juste pour nu protéger tey jii ñii di wax ñépp kuñ ci waxaloon naka sudul noonu wala ñu def la ko nga porte plainte parce que nit ki ginnaaw alalam ci poosam deram la gën a fonk ci àddina mais sëgg ci deru jàmbur yi lu la neex wax du président du kenn pare bëgg a sol sa mbubu journaliste nanoo man kenn duma laal bu dee loolu mooy journalisme kon métier bi métier tooñkat la man jàpp ma ni loolu lu noble la lu ñu war a teg ci yoon lu ñu war a toog ci yoon parce que nag liñ bëgg a teg Sonko mais bu ko Sonko nangoo sax mais ñu xoolaat ko mooy Sonko bi muy opposé mënul am jàmm léegi bu jotee nguur sox waratul am jàmm mais loolu pour pour quelle raison boo waxee ñu le deux poids deux mesures deux poids deux mesures presse bi ñoo koy def mati Sarr Niang démb sans limite mais Maty Sarr Niang xool lim ko def ñiy wax ci mbiri Cheikh Yérim Seck yëpp di wax mbiri journalisme léegi Maty Sarr Niang moom amul yaay amul baay moom du sénégalais nekk une journaliste nekk dans l'exercice de ses fonctions man bu dee am na yëguma ko gisaguma benn dénonciation bu ñu def te Maty Sarr li ñu ko def mooy la xar kanamam xar kanamam Cheikh Yérim tooñ na nan ko défendre maanaam dañ ne dañ ko jiñ moo tooñ ñu ne mais tooñ na waaye nan ko défendre ndax journaliste la Maty Sarr Niang ñu tooñ ko ñu ne duñ ko défendre loolay maandu déggoo leen ma de Maty dafa tooñ loolu lañ wax maanaam Cheikh Yérim dañ ne dafa tooñ loolu la ko loolu la ko toppee nii ne dafa tooñ ay nit jug ne nan défendre ci tooñ Mati Sarr ñaa ñu tooñ ko xar kanamam ñu am ay preuve ni ko tooñ parce que lu mu mën a def lu mu mën a wax du violence lañ war a exercer ci Mati ñaa léegi ñu ne Mati Sarr ñaa yow léegi kenn du la jàppale léegi ñu ne kii moom dafa tooñ ñu ne na ko jàppale. nga dégg benn Alioune génn ci mbiri Kader Alioune Tine moom dama ko respecté trop mënu mu wax ci moom mais Kader du du journaliste Kader mosul taxaw fenn journaliste. mais Alioune Tine bi muy bind paraît-il na carrière journaliste est-ce que Alioune xam na carrière sax kon il faut que ñiy jug yëpp di wax naan ñi ngi jàpp gaay ñi ngi jàpp gaay ngi jàpp Bougane woo nanu carrière woo nanu Cheikh Yérim woo nanu kii est-ce que ñii ñëpp la la ñuy wax ban ko doon wax est-ce que ñi jug yëpp di leen jàppale woo na leen na leen nag li ngeen wax ëpp na yam leen fii parce que di nga àtte noonu lay maandoo mooy kii tooñ balaa ñu koy woo ci dara man mi tey bu ma defoon naka sudul noonu di ëppal ci antenne bi mais Sa Ndiogou war na ma woo wala sony bu na ma Omar Kaay wala Modou na ma Omar li nga wax ëpp na de lii de boo bu ma sañoon doo ko waxeeti hmm? wala des fois nga def si émission sax génn ñu ne wax ji ëpp na nan ko dindi noonu la ñuy dimbalee nit même bu may mer man nan ma wax dëgg loolu moo jaadu parce que ñi leen di jàppale ñëpp. bul leen bëggoon dimbali ba ñuy wax li ñuy wax di def li ñuy def parce que nguur goo xam ne six mois la am maye ko état de grâce ñu ne samp nañ jomaay tey samp nañ Sonko tey rek maanaam lu ne ñu yàq ko jël dem ba ca ligne éditoriale journal nga mën ko soppi pour contrer leen. boo waree wax ci armée bi da nga ciy wax boo waree wax ci lii da nga ciy boo waree lii yëng boo waree yëngal tarixa yi da nga koy yëngal boo waree yëngal diine ji da nga koy yëngal boo waree lii maanaam lépp nga bëgg ko def comme ñoom mais nag nit ku ne yat ba mu yor moom la mën a xeexee yow sa làmmiñ nga yor ak sa wax ju ñaaw ñii nguur lañ yor kenn waxul ni nag nguur da koy xeexee kon il faut que ñu bàyyi xel ci loolu bañ a far nit ci tooñ lu tax sànq ma ni le plan anti Sonko loolu wala plan or Sonko bi lii lépp da cee dugg parce que jàngat bi li nga fi dégg yëpp du baa ngay dégg Macky Sall day ñëwaat nga gis waa PDS ànd ak kii nu mu tudd ma waa waa APR système bu njëkk ba ñooy waaj a dee te xam nañ ni lii Sonko ak Diomaye taxawal bis bu ñu demee ba deux mille vingt neuf xaw ma kii nekk seen candidat si maanaam projet bi continuer di nekk au pouvoir ñii ñëpp kenn du leen déggante seen intérêt dafa menacé wu boo xoolee ñi sëriñ si nga xool politiciens yi nga xool yenn journalistes yi nga xool yëpp danoo àndandoo ñoom ñi bëggantewul woon démb danoo àndandoo doon benn pour que projet bi vingt cinq ans yi ñu wax na ba deux mille cinquante daf war a ne ñoom ñu ne comme Diomaye fexe nan ba mu falu boo gisee duñ attaqué Diomaye ñu ne nan attaqué Sonko mooy den nan kar Sonko 2029 parce que gis nañ ci Diomaye ngor ak diine joo xam ne mun na dem ba 2029 mu ne Sonko candidat Diomaye mun na loolu parce que Diomaye dafa doylu boo xoolee ni muy dundeek yooyu mun na dem ba 2029 mu joxe réew na Sonko nekk candidat dem loolu mën na ne waxuma ne nag mooy am gars yi nag ne comme loolu mën na nekke léegi nan yàq deru Sonko na moom day utiliser justice day fayantoo maanaam lii boo xoolee image yu Sonko bi ñu tabax ci àddina ba tey ji waa bitim réewu nawkaak ñu ne image boobu la am ñu taxaw mu jaral leen lu ne xaw ma nag lu nekk seen ginnaaw parce que Sonko arrangé wul ñenn ñi ci réew mi mais arrangé wul ñenn ñi ca bitim réew parce que dafa taxawal lu bees parce que dafa mel ne li naan isbul xaq ak isbul seytaan léegi nag yow bu dee ni yow da nga taxaw ci isbul xaq woo ci dëgg. te yow nga fekk fi fen fekk fi ay njubla nga ay naafeex mais ñoo fenkat yi parce que lu bon dafa mën a sakkan ak naafeex yi dañuy dajaloo pour ne projet bi du fi nekk moo waral ñu bëgg leen a carte assemblée nationale xoolal laaj bi may laaj laaj bi may laaj Ablaye laaj boobu laay tëjee sonk ak Jomaay nee nan dañuy dem élection ñoom majorité lan soxla ci assemblée nationale pour gouverner mais aussi pour doxal projet bi def yenn réforme yi parce que aussi le pouvoir c'est ça boo ko deful mën nga falu mais doo doxal te loolu li koy dëggal mooy bi ñu faloo ni leen assemblée bi gàllankoore ak système bi fi nekkoon léegi tey opposition bi dajaloo bu jotee majorité bi ñoom lan lañ koy doyee du leen laaj loolu maanaam par extraordinaire ñu xëyeen rek opposition bi gagné élection législative yi léegi ñoom seen majorité boobu lan lañ koy doyee mooy bloqué Sonko ak Diomaye bloqué réew mi loolu est-ce que sénégalais dinañ ko nangu ñii dañ ne boo leen ñu joxe ñu liggéey réew mi ñii ne boo leen joxe ñu bloqué réew mi léegi sénégalais ñoo war tànn ñi bëgg doxal réew mi ak ñi bëgg a réew mi mbokk yi kon di jégalu ñëpp di baalu ak ñëpp képp kun fi tudd yéenewun kenn kaso buñ sañoon ku lii dalay wax parce que yéen kenn du ko yéene nit parce que nit ki moom ku ko yéene kasoog dee moom mooy na ni bëggoo ko te ñun bañuñu kenn mais nag fu dëgg amul jàmm du fa am il faut se dire la vérité di gërëm Abdoulaye jàlloo abdu Top ak euh, El Hadj Modou Diouf Fallou tam ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu ñuy seetaan yépp di leen wax nag ñi aimé di partager affaire yi di gën a yaatu ci solution info TV Omar Bun Xataab Gueye moo nekkoon ci kàddu gi kon beneen alxamis incha allah ñu dellu siwaat ci beneen émission 30 euh, minutes chrono.